sa xam sa tey xam sa tey xam production de Goethe Institut en collaboration avec les Archives nationales du Sénégal et Kër Leyti la maison de l'oralité et du patrimoine. àdduna yàgg na waaye ëllëg ci démb lay jóge déglu leen ma may ma nopp ma nettali leen jaar-jaaru Sénégal bu rafet bii sunu réew mii may leen ma nopp ma ànd ak yéen ñu tukki ci jëf ju mag ju réew mi may leen ma nopp ñu dundalaat sunu xel ak sunu fàttaliku ñun doom yi fàttaliku ay doomam di góor di jigéen may leen ma nopp ñu wax ci ñi nga xam ne seen jëf rafet na ba nettali bi rafet may leen ma nopp ndax sunu taarix dafa rafet te jar a xam may leen ma nopp seen noppi xol nag laa soxla ngir ma ànd ak yéen ba ci suñ biir xolu démb may leen ma nopp ngir ñu mën a dund sunu tey may leen ma nopp ngir ñu mën a waajal sunu ëllëg ñun ñooy taarix. gaynde gaynde bugul moom yaa lay dundee. jaar-jaar yi équipe nationale bu Sénégal jar naa waxtaanee ndax bu football bi tollee fii mu toll tey ndami équipe nationale ci la bokk moo tax ñu tuddee leen gaynde yi. am na ci lu mën a nettali am na ci lu xajut ci nettali waaye nan jàpp rek ne 1961 lañ sos équipe boobu booba nag dañoo tànnoon ñi nu jàppoo dañoo dàqoon football boole leen fédération sénégalaise tànn leen. waaye seen daje bu njëkk seen jongante yu njëkk 1961 la liñ tuddee woon Jeux africains de l'amitié fële ci Abidjan. waaye ñaari at lañ ci teg 1963. fii ci Dakar ñu organiser fii liñ tuddee jeu de l'amitié Sénégal dóor France ca demi-finale ya ñaar ci dara taseeg yi ca finale ba gagné ko. booba nag équipe nationale dafa am ay kàngam ku ci mel ne Malick Sy Souris ku ci mel ne Youssouf Ndiaye ñooña nga xam ne sax dem nañ ba ca atum 2000 kii moo jiite fédération bi kii nekk ministre des sports nañu dellu 1965 ca Tunis nga xam ne Sénégal bi mu. xëccoo ak Tunisie ba match ba jeex dañoo wàññi ki ëpp corner ne Sénégal la kon ne Tunisie moo gagné looloo ko teree gagné. gaynde yooyu nag coupe d'Afrique bii nga xam ne mooy juróom-benneel bi ca Éthiopie ca Asmara 1968 bokkoon nañ ci. booba équipe bi ñetti entraîneur la am Mawade Wade Jojo ak Lamine Diack Mawade Wade kenn du ko fàtte Jojo kenn du ko fàtte Lamine Diack kenn du ko fàtte. waaye nag ba nu paree seetlukat yi nee nañ équipe bii équipe bu am ëllëg la. bi ñu jógee Éthiopie nag Sénégal toog na lu mat fukki at demut Coupe d'Afrique waaye terewul lépp loo xam ne fii la ci sunu dend bi ñu tuddee ko zone de Sénégal gagné na ko ci coupe amicale Cabral diggante 1979 ak 1986 cey 86. 86 googu di at mu rëy ndax 86 ca la Sénégal dellu suwaat coupe d'Afrique des nations te Asmara la ci jógee woon 1968 waaye ba mu ñëwee keroog. Zimbabwe du ko nettali ñett ci dara stade Demba Diop fees ba foo sànni mbàtt mu takk Sénégalais yëpp génn kër yi jax mbedd yi fees bu liggéey yi fees dell ki nit Sénégal daal di am ndam fukki at ak juróom-ñett la toogoon booba demut Coupe d'Afrique cey bokkaande kenn du ko fàtte bis booba ma ne réew mi nag ne nan jóg ku am dërëm indi ku am ñaar dërëm indi ku am ñetti dërëm indi élèves yi jël seen mburu bañ a jënd ñi jël seeni crème bañ a lekk ñu dajale xaalis bépp na équipe bi yat nan la demal Égypte noonu la Sénégal demee Égypte 1986 cey 1986 boobu sénégalais yu juddoo France nekk fay football ñu tëddee leen Senef sénégalais de France ak ñi nga xam ne ñoo juddoo fii màgg dem tekki fa ñooñu ñoo ànd ana ñooñu ñan lañ ci jàpp Jules francois Bocandé Metz ana ñan lañ jàpp Omar Gueye Paris Saint-Germain Thierno Youm Laval ak ñeneen ñi nga xam ne nag ñoom ñooy footballeur yi mag yi nekkoon fii nag yoroon championnat bu mag bi ana gardien bu baax bi Cheikh Seck bu jaraaf ana Roger Mendy bi nga xam ne kenn dootu ko fàtte ak capitaine ba Amadou Diop Boy Bandi ñii leen jaxase ñu dem Caire 86 kay suba ñu ubbi ñu jàkkaarloog Égypte mi nga xam ne moom moo organisé daal di koy dóor benn ci dara keroog añ yu bëri këpp nañ mbedd mi festel ak gone keroog ku jàng ngoon xamoo loo jàng ku liggéey ngoon xamoo loo liggéey waaye nag Sénégal demut final ndax ginnaaw bi mu dóoree Mozambique Côte d'Ivoire leen téye yoon yemut ci benn Sénégal delluwaat toog 1992 ñu ne Sénégal yaay organisé 18e édition Coupe d'Afrique Sénégal di xeex di xeex di xeex ba ak final de finale di koy dóor mu toog jaar-jaaru équipe nationale lañuy nettali ndax at yi nga xam ne 1990 la équipe nationale Sénégal da cee ñàkkoon doole ba tax lu bëri fekkewu ko waaye cay 2000 2000 ci lañ soppi nguur waaye 2000 ci lañ soppi football ndax 2000 ci la Sénégal dem demi-finale Nigéria dóor ko moom mi nga xam ne moo Ghana ñoo àndoon organisé te booba kat ñaari bal rek la ci benn waaye ndeke booba jàng nañ ci am na sénégalais yoo xam ne keroog turu Sénégal ki gañ ca lañ ko njëkk a dégg falan ko sosee 2001 nag ñu jàpp ko muy at moo xam ne jig na Sénégal ndax ca la demaat coupe d'Afrique ca la dem coupe du monde ca la dugg nag ci géewub àdduna 2001 booba ca la turu gaynde nekk ci tubaab les lion de la Teranga ndax Cameroun la ñuy wax lion lions indomptables les lion de l'Atlas waa Maroc Sénégal ñu tuddee leen les lion de la Teranga gayndey teraanga yi ndax teraanga ni mel senegal boobu ba léegi nag képp ku leen di tudd noonu nga leen tuddee muy fii muy feneen Bamako Coupe d'Afrique janvier 2002 Sénégal ana ñu ci àndoon gone yu am jom gone yoo xam ne ña nga woon ci équipe France ya gone yooyu ñan lañ El Hadj Diouf bu Lens Kalidou Fadiga Auxerre Henri Camara Sedan Pape Bouba Diop Grasshopper bu Zurich Ferdinand Coly Lens Aliou Cissé Montpellier Tony Silva Monaco Omar Daf Sochaux Salif Diao Sedan Habib Beye Strasbourg Lamine Diatta Rennes keroog war nañ àdduna luy football war nañ Afrique luy football Zambie du ko weddi RDC du ko weddi Nigéria du ko weddi ca lañ demee final nag ban demee final tiré penalty ca waaye nag. Sénégal ndeke waajtaay la woon ban fa jógee dem fee nga xam ne mooy coupe du monde ba nu demee coupe du monde nag am na lu ñu fa def ndax France lan dóor éliminé ko France yoroon coupe du monde ba waaye ban dooree France éliminé ko yamuñu ca danoo def loo xam ne Cameroun dong nga ko a def mooy dem ba quart de finale Turquie leen téye gannaaw ba ban dooree Suède waaye Sénégal daanu mel ne moo gañe ñibbi suñu tertu leen ñu mel ne buur xam sa tay xam sa kon nag mën nañoo jàpp ne 2002 ba léegi équipe nationale Sénégal mi ngi ci yoonam ndax 2006 dem na demi-finale kaan premier tour nag la ñu am 2008 li ngeen mën a jàppit mooy 2010 phase finale compétition ba àgguñu ca ndax tour préliminaire la ñu yem 2012 premier tour CAN la ñu yem 2013 équipe bi dañ koy éliminer ca phase préliminaire ya ca qualification ba 2015 ñu dem Coupe d'Afrique waaye premier tour la ñu yem 2017 nag équipe bi taxawaat li ñu mën a jàpp ci équipe nationale Sénégal football mooy Coupe d'Afrique 2007 bi nga xam ne Gabon moo ko organisé woon 14 janvier ba 5 février Aliou Cissé moo leen yóbbu. gaynde yooya dem nañ ba quart de finale quart de finale booba nag Cameroun lañ dajeelaat Cameroun ma leen gagné moo gagné waat coupe ba 2018. équipe Sénégal bokk ci juróomi équipe yi nga xam ne ñoo demaat coupe du monde Russie Sadio jiite leen moom ma jóge woon Liverpool te bokk ci kàngami football bi. groupe H la Sénégal bokkoon dóor poloñ ca ubbi teef ga. Tembo ak Japon ñaar ak ñaar daanu ci kanamu kolom bi waaye gis ngeen bi poule yi matee Sénégal ak Japon bi nga xam ne war nañoo tànn kenn ñu xool ki nga xam ne bëriwut ay carton jaune ak i carton rouge ca Sénégal ñibbisee. waaye nag ñi nga xam ne ñu ngi doon seetaan ñëpp jàpp nañ ne équipe bii ay jàmbaare fi ne. Coupe d'Afrique nag des Nations 2019 Sénégal yaakaaroon ne dana ci am ndam waaye gis ngeen ko dam demee Sénégal xëccoo na huitième de finale mu romb Ouganda benn ci dara quart de finale mu dóor benee benn ci dara demi-finale mu dóor Tunisie benn ci dara dem finale nag Algérie dóor bal mu yéeg ca kaw dugg ca biir camp muy benn ci dara. Sénégal ñibbi si amul ndam waaye bu nu fàttee ne njiglaay la. mooy Sénégal booba ba léegi classement FIFA moo nekk ca kaw kenn jiituwu ko ndax depuis 4 avril 2019 fu nu nattee Sénégal nekk ci kaw mbokk yi jaar-jaar bu gàtt ngi nii équipe nationale du Sénégal football kàngam yi tur yi mag yi. wax nañ leen ko ci ñoom suuri ci ñoom Youssou Ndiaye wax nañ leen ko ci ñoom Cheikh Seck. ca ñoom Mansour Wade wax nañ leen ko ca ñoom Bokande wax nañ leen ko ca ñoom Thierno Youm ca ñoom Omar Gueye Sène wax nañ leen ko ci ñoom El Hadj ñoom Fadiga wax leen ko ci ñoom Henri Camara wax leen ko ba ci ñoom Sadio Mané ñii nga xam ne ñoo ko yor lii mooy jaar-jaaru équipe nationale lu Sénégal ci tënk ak ci gàttal mu jaroon na xam nag mbokk yi Ablaye Diaw di ko nettalee nii borom taarix yi di ko nettalee nii. al moom yaa pulay xam sa démb waxtaan wu leen Goethe Institut may ànd ci ak Archives nationales du Sénégal ak it Kër Leyti maison de l'oralité et du patrimoine direction artistique ak présentation Massamba Gueye assistant Abou Soumaré régie technique La Factory bu Ousmane Faye ci xarala gi Roland Sagna coordonnatrice Goethe Institut